c'est bon. Voilà, on nous demande de dégager. On n'est pas de Non, non, non. Bonjour. waaye député yaa ngi noonu taxaw député yi. député yaa ngi nii taxaw na ñoom ñoo koy yaa ngi nekk yaa ngi. waaw Seydou Ka jëlee suuf jëlee jëlee. waaw directive laa bëgg a jëlaat. loolu bi bu baax jëlee lool. Aliou Sall ak noonu bi. Monsieur le maire, monsieur le maire, on fait la déclaration. Allez-y. Allez-y. lu waral coow li. bon façon yi dox la waxoon. wala ndax dañuy dellu ginnaaw xaar ba beneen am nañu sañ-sañu sur l'étendue du territoire national ci loo xamante ni lii siège parti politique la boo xam ne dafa am ay kayit yoo xam ne état moo ko ko jox ñu am autorisation de réunion en privé ñu war fee daje pour tënk ñu ñëw fekk gendarmerie wéer seen taatu oto yi ci bunt bi wéer ñoom seen i ndig seen i digg ginnaaw ci bunt bi nee nañu fii xalaa mandir ndiir bàjjo kenn du fi lii moo fi am ñëw nañu nag pour def suñu réunion tere nañu def suñu réunion fii ci siège bi nga xam ne bi mooy le quartier général de la coalition Yewwi Askan Wi loolu nag li mu jur mooy tey mooy la deuxième ou troisième fois lii di am il faut que ñu xam ni dañoo nekk ci démocratie wala dañoo nekk ci loo xam ne lii leneen lay doon lii moom lañ doxoon ne dañ koy wax sénégalais yi nekkatuñu ci démocratie Macky Sall xañ nañu noyyi xañ nañu liberté mu ngi jàpp 400 jeunes tëj leen ci kaso bi jàpp ñii mu leen di mu ñii mu leen di takkal ay ay ay ay ay li ci tegu mooy kenn du wax ci dëkk bi ñi ngi nii dañu topp mi ngi nii dañu topp non on va dire ce a à dire s'ils veulent charger ils n'ont qu'à charger bu ñu bëggee sànni lacrymogène nañu sànni lacrymogène nee leen ñun pare nañu pour naan ay litres lacrymogène il faut que mu loolu il faut que mu loolu loolu mu leer donc fu mu toll nii lii moo am ci Sénégal lii lañ bëggoon yëkkati jokkoo leen ko yéen ñu bàyyi kilifa ñu wax ak yéen.

Seydou Kaay Seydou Kaay dooraat nan ñu ngi noonu door nañ Khalifa ak noonu Seydou gis nga Khalifa Sall noonu gis nga Khalifa Sall noonu kon gars door nañ ko lakk romajal door nañ door nañ nga noonu Khalifa ak noonu Khalifa Sall est que lii door nañ lakk romajal door nañ Khalifa noonu ñu ko dugal parce que gisatul. xëy président euh, xeeru du Khalifa Sall ak noonu gisatul ñoon ñu ko dugal ci cabine bi. l'heure est parce que actuellement li ñu doon xalaat mooy gaz yi dootu noonu gaz yi te ñenn ko ñu dul takk der yi ñoon ko wax parce que bi ñuy discuter noonu ci lañ ko dóor ñoo gis noonu actuellement ñun ñu ngi ci benn euh, benn benn benn boîte si yoo xam ne liggéey ci dina xaw a metti muy lu métti loo xam ne gis ngeen ko gis ngeen ko doon l'heure est très grave ñu am na député yi taxaw neen à côté gis leen gis ngeen noonu alkaati yi da ngay continuer di dóor Seydou ki nga doon da ngay di dóor ñu ngi doon di sox di kon continuer di sox di dóor côté bi député yi nekk kenn gis ci image yi nii côté bi euh, alkaat député yi nekk fa la ñuy dóor nii nga gis ko noonu nga député yi ña nga gis nga noonu député yaa ngi ne Seydou ngeen siin ci image yi am na ku ni lu ñu joxoon fee mbaa dafa lu xew fa wala. dafa am ku ñu gaañ. xamaguñu dafa am am na ku tëdd fee lan xew mbaa jàmm kaan jëm jéem a gëstu xool loolu lan la am na keneen ku ñu jàppoo tam ñu. gis nga noonu am na ku tëdd am na ku tëdd. Seydou looy dafa daanu dafa daanu lu xew Seydou c'est grave ah c'est grave c'est grave suñu confrère la mi ngi nii daanu gis nga ko nii suñu confrère la mi ngi nii daanu ah bal ko daal bal bi oto bi oto bi yëg ci kawam oto ban waaw bi mu mel ni oto ah? Ah. mu mel ni oto bi. oui non du feuse du feuse du y a une confrère. Euh, waaw xam nañ ko xam nañ ko way attends ma ko parce que parce que dafa gendarme yi ñoo chargé moo daw oto bi jaar ci kawam mais ci tànk bi. ñu ngi di toppal li nga xam ne moom mooy direct bi en tout cas daal gis ngeen image yi nga xam ne moom moo am mooy que ni sunu benn. Aba Aba Aba situation ah, yéen ko gis mu ngi ay citoyens de ay députés ñoom ñoo ñëw di constater ni dañoo tëj suñu siège. taxaw di wax vous êtes témoin ñu chargé ñu sànni ay grenades lacrymogènes gis ngeen kii elle est entre la vie ou et mort à cause de de de la gendarmerie c'est c'est une journaliste elle est là cochée c'est votre collègue gis ngeen ko c'est vous-même qui avez vu. surtout que bi maanaam léegi ñu gazé ñu tuuma ay lan gazé lañ gazé alors que ñu ngi taxaw librement di wax li ñu war a wax donc dans ce pays yoon amatu fi léegi nag comme Macky Sall lii la bëgg jeex na il va voir. nga doon cadre cadre. c'est la faute des des forces de défense et qui ont qui ont fait preuve de de de brutalité inouïe ñoom la ñu ngi nii de simples citoyens ñoo nga leen di gazé journaliste def seen liggéey. et puis jigéen la et mu ngi nii. ak kooram gi ak kooram gi ñoom ñoo ko sànni grenade lacrymogène mu daanu mu ngi nii oto jaar ci kaw voilà. c'est grave ah c'est xool ndax euh, euh, situation bi na da lu ci mënti am daal doy na waar doy na waar ah, doy na waar tey Seydou gis nga nii ci image yi waaw muy situation bu doy waar boo xam ne gis ngeen ko fii. ci siège u Déthié Fall mi ngi amee juste côté ci siège u Déthié Fall ci angle bi ñoom bi ñu pour def seen point de presse ci la euh, euh, gendarme yi euh, sànni lacrymogène grenade yi ci la lii wii di nga xam ne mooy dégâts bi am xamaguñ exact nag lan la parce que ñu ngi woo ambulance pour mu ñëw jéem a koo yëkkati ñu xool. Mhm. daa jaar si koom wala ana ta Gracias.

encore beneen victime beneen victime encore euh, ci li nga xam te moom moo di euh, takk der yi gis ngeen beneen victime bu ñu defal encore. Eh, Marena Marena fais le direct parce que dafa gaañ non bu mu bouger bu mu bouger Ouaka fan la nekk eh, ak police ñoom bu ñu tiiree la kii boobu duñu xool ndax journaliste la wala wala lan la bi ñu ñëw rek tiiree mu ngi noonu gis ngeen encore une fois li nga xamante ne moom moo di takk der yi gis ngeen ñu xooluñu journaliste xooluñu dara gis ngeen kii nu mu tëddee nii. waaw comme ni ngeen ko déggee noonu député yi ñoom nee nañu jéem Bamba Kassé moom mi nga xam ne ci li nga xam ne wàllu presse bi moom am na ci kàddu pour mu jéem wax ci lii ndax lii tamit dafa mujjee metti ndax léegi moom dafa mel ne Sénégal moom presque amatuñ fi carte amatuñ fi gëj amatuñ fi dara te ñoom ñoo doon troisième pouvoir fii ci Sénégal mais léegi daa mel ne amatuñ fi cër joxatuñ leen cër waaw boo gisee lii ci jigéen la ci daan doole liggéeyam ñoom ñu waaw lu mënti lool ak lu mënti Hmm? Yacine témoin témoin. journaliste témoin waay. témoin web la am ngeen numéro témoin. numéro moom lañ ko xamoon de. laa wuyu la yoroo numéro euh, témoin. ay Yacine waay. donc ñu ngi laaj sa numéro témoin. xam nga Malick bu nekk yaa ngi saa Malick jeune jeune bon kër yi donc ñu leen nekk yaa ñoo wane garantie la képp ko nga xam ne yor ngeen numéro directeur du témoin bi nga ko woo parce que ñun instant bi dañoo xaw a jàpp alors boobu ñu ngi daw bi muy daw la donc boobu ñu ngi daw dañoo door ay grenades benn oto boo xam ne

bu nekkee yaa ngi seetaan sama live bi Yacine moom la moom la gars yi jaar ci kawam fii léegi nii député yëpp nga ko wër nii euh, ginnaaw siège bu PRP waaw di jëmal xool directeur am moom boo ko mënee woo c'est bien ok c'est bon euh, gis ngeen euh, mu nekk loo xam ne ko na lool vraiment gis ngeen député ñun ñëpp ngi noonu di taxaw ñëpp ngi noonu di taxaw door doon lu métti vraiment ñu xaarandiku ñu continuer euh, di xaarandiku. xëy ci ci kanamam la jaaree ci kanamam la amee ci kanamam la amee wala na benn journaliste bi dem nee na ci kanamam la amee woon. waaw mel na am na benn lan la jëlal rek laa ñu jàllale rek dégg nga. courage rek parce que c'est le c'est le directeur. parce que c'est le directeur. lu lay métti lu lay métti. am na kooku bas woo nañ ko. indi indi voilà appuyé appuyé sa loxo ma woo ko keneen su bas. a kenn rek sa a rek kon bi du mat leen a ah, ñëw. woo leen kii jour. ah jour jour. a laal nga sa bopp laal nga sa bopp a la jaar. c'est dégg nga. Bon, euh, les policiers qui sont à bu yaay sama tànk ba bu ko yëkkati bu ko yëkkati bu ko bouger s'il te plaît Yacine Yacine est-ce que yaa ngi may dégg Yacine bul bouger sa tànk. maman soutien de famille laa. Yacine yaa may dégg. wuyu ma Yacine. Yacine yaa may dégg il faut nga dimbali ma Basile Yacine non non tu rêves pas Yacine Yacine ne bul yëkkati sa tànk Yacine. massa bu yëkkati sa tànk nga ñu gaaw a wutal waay. mais nag sàpp dafa war a gaaw ñëw tamit am wala bu fekkee boo mënul woon. xaw ma dafa sonn mais aussi. mën na ko yëkkati nii mais sàpp bu gaaw ñëw ñu woo keneen. wala sami wala keneen. Fadel yow eh yow boo calmé wul moom du calme donc toi tu te calmes en premier. maa ngi fii di ko fulaar. fulaar dafa waaw mënul am ngeen tim ko di nga jóg léegi incha allah. ci ginnaaw ci ginnaaw. oui ma bul bouger sa tànk bi dégg nga. sam papa. Hmm? sam papa man la yaakaar. buy ma bul bouger sa tànk Yacine est que tu m'entends Yacine bul bouger sa tànk dégg nga d'accord bul bouger sa tànk dégg nga couvrir la ñu ngi ñëw médecin bi dina ñëw bul bouger sa tànk il faut surtout pas bouger sa tànk d'accord sa sécurité moo tax ma lay wax loolu dégg donc calme-toi c'est tout. man soutien de famille soutien de famille nga te di nga delluwaat si sa famille. xoolal di nga delluwaat si famille incha allah nga liggéey di nga delluwaat. bul bougé bul bougé mooy dee. moo di wax ak ñun. voilà yaa ngi nii di wax ak ñun yaa ngi nii di wax ak ñun. bul yëkkati bul bouger sa tànk bul def benn effort ci sa tànk d'accord waxaat loolu boo bëggee nga wax moom mu calmé ko mu xelam dal xelam dal mën nga ko paas am xelam dal xaar dinañ la paas sa frère bi wax dégg mais bul bouger sa tànk bi ngi ne di ñëw gis nga ambulance ngi ñëw sama ambulance baa ngi ñëw mi ngi ñëw ils vont bien s'occuper de toi d'accord la yëkkati comme il faut yóbbu la ñu faj la dégg nga. sama sa papa fii lay nekk ak yow sa papa fii lay nekk ak yow dégg ñu ngi woo sa frère bi pour coordonner ak moom incha allah d'accord. waaw. Pape Sine Deme du dem fenn di nga gisante waat ak sa pap d'accord di nga gisante waat ak sa pap di nga gisante waat ak sa pap di nga dellu si sa pap ak sa famille am sa yaay sa yaay yëpp di nga delluwaat ci moom d'accord d'accord non maa ngi lay maa ngi lay téléphone dégg hmm? ambulance bi la hmm? ñoom xam nañ ko yàlla na. benn ngi nii benn ngi nii am na beneen bu am na keneen am na beneen bu ndaw bi waaw boobu laa bu ndaw. bon mën nañ ko bàyyi léegi ak moom mën nañ ko bàyyi ak moom ah. Voilà. bu xam rek moo ko mën a laal waaw sinon on va la traumatiser davantage. voilà mooy Yacine. bon ce qui était la première speaker. Yacine. oui. ayi tànk bi tànk boobu la dugg jiw. oui yaay. est-ce qu'on peut pas descendre le brancard. oui yaay. oto bi ñaari yoon la jaar ci tànk bi dégg nga ah. oui sama pot bi yàqu na. ñaari yoon la jaar ci tànk bi dégg nga. donc il faut il faut il faut il faut il faut il faut wàcce. ne bouge pas ne bouge pas. wilaay yaay waay wit sama ndeyooy wilaay wilaay yooy wilaay yooy sama yaram bi gars yi ñu kaa gis kuja température neuf non aucun geste parce que ñoo ko gënoon a jege ils n'ont rien fait non assistance à personne en danger bi ñuy wax naan xaw ma ñoo ko def ci ñoom la gën a jege ñoom ñoo ko gënoon jege ils n'ont pas réagi ils étaient occupés à gazer les gens voilà le Sénégal dans lequel on est journaliste du fi liggéey sénégalais du lekk ba suur kenn du naan ba mandi mais kenn du wax kenn du laaj voilà le Sénégal. est fi non li fi xew c'est simple li fi xew simple on est venu au siège ici pour pour nous réunir et faire prendre une décision ils nous ont barricadé le siège ils nous ont empêché de nous approcher du siège fi ñu taxaw di wax li ñuy wax.

voilà ah waaw jibi si nga situation bi fu mu tollagum. Seydou gis nga situation bi yaa si da nga noonu ñu ngi koy yóbbu benn 4-4 moo jaar si kaw tànk bi aller retour 4-4 moo jaar si tànk bi aller retour mu lu doy lu waar loo xam ne gis ngeen ne gendarme yi di wàcc pour dóoraat si nga doon gendarme yi. gis nga noonu gendarme yi dóoraat nanu gendarme yi dóoraat nanu gendarme yaa ngi noonu dóoraat nanu gendarme yaa ngi noonu dóoraat nanu kanam yëpp marine ko sunu kanam yëpp marine nañ ko fi ñu soble rek ñu manqué sunu kanam yëpp dañ ko mariner soble dongo nu manqué ak poobar Seydou sunu kanam yëpp mariner nañ ko ak vinaigre soble dongo nu manqué ah, parce que buñ la dóoree l'accorbensal gazé vinaigre moom rek ci mën moo tax bu nee gazé rek nga jël vinaigre moo tax ñun ñëpp sunu kanam yaa ngi fet fet yi ah ku la ci romb da la sauce marinade lay xëy ndax vinaigre bu bari ñun ñëpp ah, ah mais Yacine daal ñi ngi ñaan yàlla may ko weer yàlla taxaw ko parce que kaam doy na waar mais sant yàlla sant yàlla parce que euh, gi nga li ci xew euh, ambulance bi jël na ko ba yóbbu ko waaye ñun ko la ci romb rek mi ngi xeeñ marine ndax vinaigre bu bari ñun ñëpp vinaigre la ñuy xeeñ ñun ñëpp ñun ñëpp vinaigre la ñuy xeeñ. vinaigre ah <laughs> koo ci gis rek da ngay jàpp ni soos marinade la ndax vinaigre bu bari ah. Ah, moo tax waaye li ma jaa ma dem ne biteelu lem biteelu vinaigre moo gën a seer biteelu lem fii lem gu mën a doon biteelu vinaigre ko gën a seer. ki gaañu di ma di ko masawu di masawu di masawu waa di leen ko masawu yéen ñëpp lii nag mooy Sénégalu léegi amatul dëgg amatul yoon voilà merci beaucoup. Sénégal amatul kàddu yi Khalifa Sall moom la mujjee wax mooy Sénégalu léegi amatul dëgg amatul yoon. moom nga gis Seydou mu ngi ci 4x4 ngeen gis muy 4x4 Toyota bi waaye muy situation bu doy waar boo xam ne ñu ngi doon di ko yóbbu moom itam daj na fi tam loo xam ne lu métti la parce que bi ñu dooree gàllakarmasel yi ñu ñëw di xool bi ñuy ñëw yegg di doog yegg si ci la ko ambulance bi yóbbu fekk na aussi gendarmerie chargé waat nañu mu nekk loo xam ne lu ñaaw la yaakaaruñ koy woon que ne maanaam dëkk bi euh, dinañ dundee nañ dund lii euh, parce que bu ñu fi nekkee ñun dañuy ñëw pour jël xibaar bi euh, recueillir ko traité ka jox ko population bi. donc c'est un devoir constitutionnel boo xam ne moom la journaliste yi di dox jamono jii nii donc dara am na il faut que population bi mën a xam li xew et pour ñu mën a xam li xew il faut que journaliste yi nekk ci terrain bi. et bu ñu nekkee terrain bi nag ñu leen di doori dóori lacrymogène wala di leen di jàpp wala ñu leen di maltraité ñu leen di tere ñu def seen liggéey ah boobaa kon nag mënatuñu wax ne maanaam. Euh, liberté de presse am na wala démocratie am na donc mu nekk loo xam ne lu jara a ñaawlu la dinaa dem léegi clinique bi nga xam te ne fa la consoeur bi nekk euh, xam exactement la moo ko dal parce que bi ma gisee image yu wax dëgg fa yàlla quand image yu yu tiis la yu ñaaw la te yaakaaruñu woon que ne am démocratie sénégalaise dina toll fii mais li ci mënta am mooy ñun continuer def seen liggéey bañ a tiit bañ a jaaxle bañ am leen lu ngeen ragal parce que aussi ay reporter ngeen moom ci terrain bi rek lay nekk et surtout aussi sàmmonte surtout aussi ak éthique ak déontologie moytu def loo xam te ne euh, sartu métier bi nanguwu ko et li ci am ba mooy ñun ñi ngi fi Bamba Kassé woo naa moom aussi mi ngi ñëw am na aussi yeneen i responsable yoo xam ne ñi ngi ñëw pour euh, ñu xool situation bi lu ci am exactement ñu li ci war nañ ko def rapidement waaw euh, taxawaay bi mooy défendre profession bi te défendre profession bi taxawu euh, journaliste yi nga xam ne ñi ngi ci terrain bi e fexe ba nga xam te ne euh, liggéey bu mucc ayib dinañ ko def euh, ci kaaraange mais aussi it ci responsabilité et surtout en tout professionnalisme parce que li ngeen fi def ci pour tataan xibaar la tas ko la et donc gisuma benn délit bu mu mën a àndal bu dee ñoom leaders yi ñoo leen intéressé ñu wax ak leaders yi bu dee manifestants yi ñoo leen intéressé ñu wax ak manifestants yi mais je que ñu fi taxaw ñëpp soit euh, micro lañ yor wala seen mbig ak feuille wala seen i caméra wala seen i téléphone di def en direct di filmer donc je pense pas que ne ñii dañ fi ñëw pour manifester ni quoi que ce soit donc mu nekk loo xam ne lu ñaaw la et li ci war en tout cas dinañ ko def moo tax ñu teew si fii nii et euh, ñi ngi dem xool concert bi ci yenn anam la nekkee ak prise en charge bi naka la demee. mu mel ne ñoom seen cible yëpp presse bi da cee bokk parce que gis nañ ni chaque manifestation bu amee ñu gis kenn ci presse bi am ay gaañu euh, waaw xam nga métier presse nag moo ànd ak risque. et lii nii du ci ñàkk moo tax il faut que euh, ñu def ta ay tàngat yu ay tàngat ay tàggat yoo xam ne dañ leen di wax maanaam euh, bu ngeen ñëwee genre manifestation yi mu am tension mu am ay jafe-jafe ngeen xam naka ngeen di taxawee ak naka ngeen di euh, yëngatoo ci biir mbir mi ba nga xam ci ne maanaam bu amee buñ chargé yéen dangeen ngeen mën a replier wu te kenn du ci am lenn lu muy lu muy lu muy lu muy lool lu lu muy tiit. bu presse yi di reporter dañuy taxaw si ginnaaw policier nekk seen wet leen di protéger mais fii c'est le contraire boo taxawee seen wet dañ lay dóor di la la euh, la tax yéen ban taxawaay ngeen war am lool ci loolu noonu. pourtant ay jamono loolu lañ doon lañ waxante sa à dire manifestation émeute bu amee journaliste ci ginnaaw policier wala ci ginnaaw gendarmerie lekk lay nekk parce que foofu la sécurité mu mën a nekk foofu la amee sécurité maintenant nag bu fekkente ne lii am na leader yi ñëw di def déclaration policiers yeeg gendarme yi parce que il faut ngeen dem jëli euh, leaders yi nga xam te ne ñoom ñooy wax le bu leen jëli jee foofu noonu ñeen ñëw leen pour sànni xeer ñëw leen pour manifester da ngeen ñëw pour maanaam jël leader yi nga xam ne dañuy def déclaration et je pense pas que déclaration soit quand même soit disons un délit non je pense pas et donc yéen yoon la ngeen taataan xibaar yoon la ngeen taataan xibaar bi parce que joxe que pour euh, population bi mën a xam exactement li xew xibaar boobu ñu war a joxe la ñu bàyyi ñu joxe ko quoi. tey lan moo baaxul de ñu gis ñu gis ne yéen ñi nga xam ne. alhamdulilah. Nabi Worldwide Shipping moo leen di yóbbul wala indil seeni bagages ak seeni marchandises chaque semaine entre Sénégal les États-Unis la Chine la France Dubaï wala Turquie yéen a xam da ngeen fay jëlee bagages wala da ngeen fay yóbbu bagaas waaye li gën a wóor mooy kuy jëlee bagaas ci gox yooyu na nga jokkoo ak Nabi Worldwide Shipping fépp ci biir États-Unis New York Ohio Californie Atlanta lu ko tàmbalee kilo ba ñetti tonnes fret aérien bi six dollars pound rek la mooy douze dollars le kilo c'est le plus le plus bas du marché su dee Chine am nañu entrepôt Guangzhou Shenzhen ak Yiwu am nañu fret aérien ak conteneur les prix les plus bas du marché lañ leen indil su dee France ñi ngi Taverny côté Kër Serigne Touba bi bu dee Ndakaaru nag ñi ngi fii Liberté 6 extension Suwetu Walfadjri am nañu agence Bamako Nouakchott Banjul Abidjan te laaj ma li gën a neex bu sa bagage yegsee

wala nga yónnee ñu mail info arobase nabi point africa amri muhajiran lima ladayka